bon damay sañ sa naa ba pare maa ngi nii di dem maa ngi dem nii jeu ji quoi waaw ah oui xale yu jigéen ñu ngi wax dem ba tey naan Arma ñii ñu ngi déposé seen CV seen candidature bon Drap Boeuf je réfléchis am na koo xam noonu nee na ma man bëgg naa la waaye étudiant la am na ko noo yoroo. cas social cas social am na ko envoyé message nee na ma yow <laughs> nii. ku yor daal mën ngaa ñëw mais ku yorul moom désolé je suis désolé ah. ah oui oui oui non non non non pas du tout ah ak ni ma sañ nii ngeen ma kii naa ma yorul waaw ah, wala boog en route euh, pour euh, Rufisque